اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا رب افتح علي فتوح العارفين بحكمك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام يا ربي زدني علما مبكي jullit yi ñi ngi yëkkati kàddu di ci jiital sant bur yàlla di ko ñaan mu dollee julli ala qiblati l arwaaxi di mawlaana muhammadin alayhi salaatu wassalaam ak waa këram ak i saxaabaam ak soxnaam ya ak mboole njabootam ga salaatu ak salaam boo xam ni danay baawaan di xëpp ba àgg ci képp ku teg sa tànk mbaa ku tegul sax sa tànk ala siraati l mustaqim yàlla na bur yàlla boole ñu ca e di ñaan sama borom niiri xéewalam yaag niiri barkeem yaag niiri ngërëmam ya yàlla bu mu deñ di ko dotti ala darixi cheikhina abil abbas ahmad tijaani mboole xalifaam yaag mboole muqaddamam yaag taalibeem yaag njabootam yaag soppeem ga yàlla na bur yàlla boole ñu ca soppeem yi ci dëgg di ñaanal saxuk ndondal ya ak bëbbug leer ya ak kattani ruu ya yàlla bu mu deñ di dotti ala darixi cheikh alhaaji malik si bur yàlla dolli ngërëmam te buur yàlla boole taas ñu ci barkeem te boole ñu ci ay njabootam. di wax rek képp ku ñuy teewlu ci baatu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi la koy teg ci sa loxo. muy tabaarakallah jàmmi yàlla ak yërmandeem ak barkeem yàlla na buur yàlla boole defal nu ko. kon nag mbokki e, daara ji ni ngeen ko xamee rek dañuy ñëw tey incha allahu taala takkal leen bunt bi nga xam ni moom la ñu jeexal muy buntu wala bokk. parti ñaarel bi insha allah dañ leen koy takkal rek ci minute yu gàtt ci ñi nga xam ne ñi ngi koy topp muy alfaslu thani fi dicri abaihi sallallahu alayhi wa sallama wa ummahatihim moom lañ leen bëgg a résumel tabarakallah da ngay wax ni yaa ghaisa albahri lil asdaafi indiya asdaafun biha durratun ala min aljalami yaa raisal bahri yow mi nuuraan géej duggoon naa ca détail ya ci diggante xaaid ak rais bu ngeen demee ca bind yu jiitu ya di ngeen ko fa fekk di nga dégg ci alquran wa min alchayatini man yaxuusuuna lahu baatu raws bokkut ak baatu xawd xawd tefes la yam rawsu ca biir géej la moo tax yaa xaaisal baxri yow mi nga xam ni yaa di nuuraan géej lil asdaafi ngir amee ca ay sadaf mooy mbuus mi ëmb wurus indiya nekk na fi man cheikh alxaaji malik radiallahu anhu asdaafun nee na ay xeeti xam-xam yoo xam ni danaa ca sukkandiku ball lu ca lol dinga ca mën a xamee amee ca la nga xam ni moo di sadaf yooyu nga xam ni di nga ci mën a génnee wurus wa di yonent alayhi salaatu wassalaam kon nag indi ya nekk na fi man asdaafun ay sadaf muy ay mbuus yoo xam ni bihaa nekk na ca ñoom du rëtun wurus woo xam ni ala mu féete kaw minal jalami ci loolu nga xam ni moo di weer ndax weer ku ne xam ni da ngay téen pour gis ko wa chimburuqal maali fi maxaayiliha binaadir l qalbi tukfa muunata al amali cheikh salahuddin ma ko waxoon nee na kuy seenu weer dëgg-dëgg nag wala ngay seenu melax da nga koy seenu fa muy fenkee kon ku ne xam na ni weer ca kaw lay fenkee lu gën a kowe weer nag kenn mënu koo xam xanaa yonente alayhi salaatu wassalaam mu ni kooku kana mu ni muhammadu nuuru abdillahi shaybataha shimin wa abdi manafin maa qusayihimi da ngay wax ni muhammad yontu yàlla muhammad nuuru abdillahi mooy leer kooku nga xam ni moo di abdullah ndax nag bu waxoon ibnu abdillah way wi du du kaam du tóol waaye problème bi mooy wax ja day waroog lamu mu ni woon lillahi nuurun yakunu llahu muudiahu abal wara tahiran fi tahiri chiyami su boobaa wooy wi du dem waaw daf ni woon lillahi maa ngi yéem yàlla nuurun leer goo xam ni yakunu nekk na moom bur yàlla muudiahu di ko dénk abal wara comme leer ga dañ koo dénkaane kay ku ne xam na ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom leer la gu ñuy dénkaane kon ñëwagul kon doo wax doomi abdullah déedéet da ngay wax nuuru abdullah mooy leeru ko abdullah mm-hmm. shaybata mooy maami mooy bàyyi ci abdullah di maami yonent bi hachim di bàyyi ci ki nga xam ne moo di shaybatu di maami yonent bi wa abdi manafin di bàyyi ci hachim mi maami yonent bi maa qusayhimi ak qusay moomu nga xamante ne bi ni mooy bàyyi abdi manaf kilaaba kilaab mooy bàyyi qusay murrata mooy bàyyi kilaab kaabin mooy bàyyi murra walu luwayi mooy bàyyi kaaba wa gaalibin mooy bàyyi luwayi wa fihrin fihr mooy bàyyi gaalib wa malik malik mooy bàyyi fihr nadri nil karam ak nadr ma nga xamante ni bii ni moo doon borom tedd nga nee na kinaanatin mooy bàyyi nadr wa xudaymatin mooy bàyyi kinaana wa mudrikatin mooy bàyyi xudayma Ilyas mooy bàyyi mudrika ma mudar nee na bul fàtte limaale kooku nga xam ne moo di mudar alhamra mudar ma nga xam ni daa weexoon tàll ndax arab ñaare nit ku weex dañ koy wax nit ku maanaam ahmar baat boobu parce que xam nga dañuy faral di wax ni تسمى الابيض احمر نيوم عرب داني فيك لو خونك نيكوي تودي لو ويخ نيت كو ويخ دا نغي واخ نيت كو خونك نيوم نكا جيك موتاخ ني مع مضر الحمراء مضر موما غا خامني كو ويخون تال لا سرهم كوكو غا خامنتيني بي ني موم مودون سين سيكري داخ مضر كو كو كو, كو ييمي وون لا واخنا ني مستا دم سي بن خاري لودول ني خاري با غاني نكو تبو كو غاني دو يام سي مسل مسل نيو كو غاني سي خاري مضر ميدي مام يونتي عليه الصلاه والسلام nee na Mudar moomu kan moo doon woy juróom Sidaaj Malik ni limal abdit limal nizaaran nizaar mooy bàyyi kooku nga xam ni moo di Mudar maaddan limaale ko mooy bàyyi nizaar waaye nag boo dikkee ba ci maad ka nga xam ni moo di bàyyam di adnaana yamal foofu taxawal moo tax mu ni man képp koo xam ni yu jaawisu ma ngay jéggi adnaanan maam yonent bii di adnaan di bàyyi nizaar di bàyyi maad fa takdibuhu nee na kooku ak kàcculoom xat jaa dikk na min al alam tukkee ci ka nga xam ni mooy drapeau bay folante ci biir xadara suñu borom ba di yonent yàlla muhammadin alayhi salaatu wassalaam ndax na daf daan wax mu ni kadaba nasaabuna man jaawaza adnaana képp koo xam ne da nga may askanale ci samay maam boo dikkee ba ci adnaan yonent yàlla muhammadin alayhi salaatu wassalaam nee na taxawal الشيخ الحاج مالك نقال ديني حملة مع الدين لشام أرميها ذكروا إذ بخت نصارى في تدمير عربهم دقاي وخني حملة مع الدين قد قوقنا خمنتني بيني قد وننكو مع الدين لشام جميكو شام ذكروا نيوم علماء الأنساب أك مؤرخون يتدون ننك كوكنا خمني مودي أرميها ولا نقا وخني ذكروا تدو ننيو حملة مع الدين قد كنا خمني مودي مع الدين لشام جميكو شام kan moo ko gàddu jëme Sham mu ni armi yabnu xalfiya am na ñu ni yonanti la woon ci yonent banu israila yi yàlla moo yabal jibril ci moom ni ko ki gàddu ci ji jamono leeru yonent bi alayhi salaam moo di maaddu bunu maaddu bunu adnaana demal nga jëli ko ca màkk nga indi ko Sham balaa buxtu nasara di àgg foofu di makkatal mukarram di leen faagaagal loolu moo tax mu ni zakaru tudd nañu xabla maadin gàddu kooku nga xam ni moo ci maad ah, tudd nañ ca koo kan armiya mu jëme ko fan mu ni li shaamin lu waraloon loola mao doon iz keroog ba nga xamee ni buxtu nasara saay-saay boobu ñuy wax buxtu nasar waxoon na leen moo doon kan su ngeen demee ci détails yi courrier di ngeen ko fa fekk fii tadmiri urbihim yi ma nga woon ci di alak ña nga xam ni moo di seen arabiya mu ñu li annahum xurumatillahi qad hataku id qatalu ambiya allahi min jurami li annahum ndaxte ñoom ñoom ñoom waa Makka ci jooju jamono xurumaatillaahi qad hataku dañoo xotti woon lépp loo xam ni lu yàlla loon wala lu borom bi waxoon ni kii ku fa ak lii ku fa ak si na nga taxaw loolu mooy xurumaatillah waaw ah, li annahum ndaxte ñoom qad hataku xotti woon nañu de xurumaatillaahi la nga xam ni moo di warmay yàlla subhaanahu wa taala iz keroog ba nga xamee ni qatalu rayoon nañu ambiya allahi yonentee yàlla solo woon min jurami ngirug tooñaange loolu waral yàlla jël saay-saay bu mel ni buxtu nasar xiir tal ko ca ñoom من إذ كان حامل نور الله كان على حفظ الإله بلا شك ولا تهم إذ كرك بنا خميني كان نكنا ممعد حامل نور الله di gàddu kii li nga xam ne moo di leerug yàlla gi di yonti yàlla muhammadin alayhi salaam kaana ca la nekk moom maat ala xifdil ilaahi ci wattuk wala kaaraangeeg buur yàlla mi ñu war a jaamu ci dëgg bila shakkin ci lu àndul ak benn sikk sakka wala tuhami ak ci lu àndul ak benn tuuma wala benn def-def la léegi nag mu des gàddu gi nan la demee kan moo ko gàddu ak ndax kii ñu ca tuddoon di armiya ibnu xalfiya moom la am déet abdullah ibnu abbas sayidna abdullah ibnu abbas am na leen lu mu ca wax mais siraj malik radiallahu anhu dabaatal na ko ci woy bi ndax xam nga moom da doon boroom xam-xam moo tax mu ni wa qiila falmalakaani alxaamilaani bihi abbasin mu ni waqiila waxeef na ni fal malakaani ñaari malaayika alxaamilaani ñooy woy gàddu bihi ci maad jëme ko ca Shaam wazaane wax jooju xadiis ibnu abbaasin xadiis la boo xam ni abdullah ibnu abbas mooy raawi ba moo ko solo axil xikam ka xam ni moo di xam-xam am ñu ni sax déedéet wallaay kañu gàddu woon du maad kañu gàddu woon baayama di adnaana looloo tax mu daal di ne wa qiila adnaanu fal mahmuulu waaliduhu walawwalu lakfaru lasfa min alkalimi wa qiila waxeef na ni adnaanu kooku nga xam ne moo di sayiduna adnaan fal mahmuulu mooy kañu gàddu woon waaliduhu di moo doon way juru ki nga xam ne moo di maad dafa bëgg a wax ni li ñu ne xam la maad din gàddu gañu gàddu maad li shaamin jëme ko shaam du woon maad waaye baayam la waaliduhu la te moo doon Adnaan loolu waxees na ko waaye boo xoolee ni mu tërale wax ji di nga xam ni wax ji dese na am tuuti crédibilité parce que bu ne waqiila waxeef na suratu tamrid la waaw foo ko fekk du ñu indi ki wax wax ji lu ñu fekk ci téere rek la te ku ne xam na ni téere dafay juum looloo tax rek mu ni waqiila waxeef na ni fal mahmuulu kañu gàddu woon waaliduhu moo doon wayjuru ma add di adnaanu waaye xamal ni wal awalu ko njëkk ka muy maat al aktharu moo gën a bari ci lañ nettali al asfaata moo gën a wér minal kalimi ci ay wax al asfa moo gën a set minal kalimi ci ay wax kon Seydi Hadji Malick moom orienté na la yaakaar naa ci façon bu ànd ak lool teggin léegi nag mu ne wa buxtu nasara idni naaruhu xamadat raddu ma addan ila aqwaalihi alkarami wa buxtu nasara waxal ni buxtu nasara id keroog ba nga xamee ni niiraanuhu sawaraam woowu ayam woowu xamadat giin raddu ne ca la ñu delloo maadan kooku nga xam ne moo di maad ila axwaalihi ca mbokkam ya alkaram yi ña nga xam ni ñoo di way tedd ndax ñooñu jamono ñooñoo yilifoon yoroon lépp lu aju ci mbiru néeg bi ak makka muy waa jurhum moo tax mu ni wahum baqaaya walaatil baytu xiina idin wa zawajuhu wa xusna ixtilaatihimi wahum ñoom ñoom ñooñu nga xam ni ñoom lañu delloo sil maad muy waa jurhum baqaayaa wulaatil bayt ci jooju jamono ñoom ñoo desoon ca ña nga xam ni ñoo méngoo mbiru néeg ba xiina isin ca jooju jële jamono waaye ba mu dikkee dañ koo daal di may soxna ca seen biir ndax xam gu ñu xam darajaam ak xam gu ñu xam kii ni moom lu mënti xew dana génne ci moom ci ndiggam lii sayidal urbi wal ajam loolu moo tax wa zawajuuhu ñu daal di koy may soxna cheikh alxaaji malik ni fa yaa xusna ixtilaatihimi waay waay woonaa rafetug seenug jaxasoo waay est-ce que léegi nag mu teg ca ni laaqa bunu affaana waxoon naa ca détail ya bayit yi lu ko ci indi fii mugiratin wa atiqan inda murrata faaruqan bi kaabihimi amma aliyun bila shakkin qad iltaqaya bi shaybati alhamdi di l ifdali walhimami da ngay wax ni laaqa daja ne ci ay maam moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam ibn affaana ak ki nga xam ne moo di sayiduna uthman ibn affan ma nga dajeeg moom fii mu riirata ci maamam jooju ñuy wax mu riira wa atiqan sayiduna abu bikrin siddiq waxoon naa leen lan moo tax ñu tuddee ko atiq inda murrata ma nga dajeeg ca moom ca maamam jooju ñuy wax murrata faaruqan sayiduna umar ibnu alxataab man daan woowe faaruq bi kaabi mi ma nga dajeeg yonent bi ci ay maam ci maamam jooju ñuy wax kaab amma aliyun nag mu ni bu fekkee sayduna ali ibn abi talib la bila shakkin ci lu amul benn sikki sàkka qad iltaqaya ca dëgg moom ak yonente alayhi salatu wasalaam daje nañ ci ay maam bi cheybatil hamdi ci kooku nga xam ne lañ daan woowee cheybatul hamd mu di abdul muttalib dil ifdali ki nga xam ne moo di wal himami ak ki nga xam ne moo yitte léegi nag cheikh alhaaji malik bi mu paree ni ni ni ni ni xulafaul arbaa bokkeeg yonent bi dafa dem directement ci ñi nga xam ne ñoom ñooy géej ya comme wax na ña nga xam ne ñoo ëmb wurus ya muy maam yu góor yi day dem ci géej yi muy ñi nga xam ne ñoom ñoo ëmb sadaf yi muy lan maam yu jigéen yi mu ni amal buxuuru ndaal géej ya li dil asdaaf yi ñeel yi la sadaf sadaf yi mooy góor ñi ëmb ëmb yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax ci seen digg la rek yonent bi doon ne fasra nee na nga xerewlu ila tartibihinna ca seenu toftale dinaa ko toftale bu ko defee tulaaqi da nga yow mi may déglu خير منتظمي اك نجيت نوسي داخ دانا لاكو نوسيل نوسي غو رافيتا رافيتا رافيت فهون نا نيوم جابال فاطمه مو تي مودي باي موي نداي كيغا خامني موي باي يوننتي بي دي عبد الله سلمى موي باي كيغا خامني ني موم مودي عبد المطلب عاتك غا توبي كو نونو تي ماميا صحبا نونلي وفاطمه اهانكاي هندون تي لا nee na simi mandargal la hunna di leen ñeel waxshiyatun ci maam yonent bi la bokk bintu sa bintu shaybaanin waxshiyatu bintu shaybaan wa maawiyatun bil waawi waxal maawiya bul wax maariya bul wax maawiya salma ca la bokk walay laa udda limal la wax boo ko defee lamtula mi deesu la yedd waaw mu ni min hunna bokk na ca maam yi maam maamam yu jigéen ya jandala waaw yaay jooju ñuy wax jandala waa ji laa tansa bul fàtte aatika wa barra ak jee yaay jooju ñuy wax barra summa bintu saadi kooku nga xam ni moo ca topp di bintu saadi nee na dil karami ka nga xam ni moo di borom tedd nga salma ca la bokkoon walayla ca la bokkoon rababun ca la bokkoon sawdatun ca la bokkoon muaanatu ca la bokkoon cheikh alhaaji malik nee na wa mahdadu kooku nga xam ni moo di mahdadu di yaayi maad ca la bokkoon i takkal waa ji al abyaata bayt yi nga xamante ni bii ni nosel naa la ko xayra muntazimi na nga ko takk boo ko defee taxtani mi cheikh alhaaji malik nee na da nga màng xéewal wax naa leen nag am na yooyu ci tariqa tariqa tijaan siraaj malik orienté nañu la koy ñaan mooy turi maam yonente bi alayhi salatu salaam bu ngeen jugee ngeen dem ci kilifa yi ak muqaddam yi du ñàkk dinañ leen ci dimbali ku bëgg a jokkoo ak ñun après mën nga nu woo ci 77 102 32 24 incha allahu taala